waa ci turu maire Touba ak ci turu Khalife des Mourides dañuy sant bu baax a baax ki nga xamante ne bii moo di Abdou Karim Sall ci euh, jëf ju rëy yi nga xam ne def na ko ndax dafay ñëwoon dig ko sëriñ bi tey ji mu ñëw jëmmal loolu kon euh, monsieur le ministre loolu ñu ngi ci sant ñu ngi lay ci gërëm ci sa ci sa bu rafet ndax bi nga ñëwee waxoon ko waxoon ko sëriñ soo waxoon ko maire bi euh, di sant itam nag ñi nga xamante ne bii aussi ñoom ñoo la gunge mu di le ministre Omar Youm et le ministre Oumar ci seen taxaay bu rafet seen taxaay bu aussi di wane yéen ni ngeen nekk benn ni ngeen booloo ni ngeen àndandoo ngir ndigal li nga xam ne moom la président la république donc di jox pour jëmale réew mi ca kanam nga xam ne yéen ñëpp benn ngeen rek ngir mën a jëmmal li nga xam ne te mooy programme président yi. lii nag di ci benn pàcc ci li nga xamante ne bii mooy euh, PSVR nga xam ne day wane yéene ak tay bi nga xam ne président am na ko ci réew mi ngir naatal mbooleem Sénégal gépp tey ji suñu borom dimbali ñu ba en tout cas nit ñi commencé nañ cee teg teg seen bët te am na yàqin ci ne bala ngeen a bàyyi rek li nga xam ne président sant na leen ko te bëgg na ko te loolu mooy réew mi vert désert bi arrière fenn fu nekk fu garab nekkoon ngeen delloo ko fa te mu nekk aussi ay garab yoo xam ne yu am njariñ la loolu jàpp nañ ne ba li ngeen a bàyyi rek incha allahu rabbi suñu borom dana leen ko dana leen ko euh, yombalal li nga xam ne aussi moom la ci tegaat sëñ Bass wax na ko léegi naa ko def daal fii ci kanam journaliste yi wax na ne mboole bokki taalibe yi ñoom ñëpp nañu jàpp ci lii ndaxte njëmbantum garab kenn ku ne def cee fekk yoonu mu murid mu nekkoon ci ndax ku ne xam na ne si Abdou Lahad suñu turandoo bu baax woo dafa woote woon Touba Belel njëmbantum garab boo xamante ne bii mu rëy la lu ko jiitu Sëriñ Fallou woote woon na ko Touba Belel Touba Bogo lu ko jiitu Cheikh Mouhamed Moussa woote woon na ko Taïf kon nag njëmbantum garab moom nga xam ne moom la si Abdou Lahad doon woote te ba tey jii boo fa demee fekk fa garab yoo xam ne garab yu jeex la loole tey jii dafa mel ne moom la ñu delloo si waat moo tax sëriñ bi am ci mbégte am ci cawarte ba ne mboolem mbokk taalibe yi ak fépp foo xamante ne bi nekk nañ fa ci biir réew mi nañu fonk garab te nañu jàpp ci li nga xam ne mooy programme bi ñu xam ne jëmbat garab yomb na waaye la gën a jafe nag mooy nga saytu ko ba garab gi mag loolu nag fii ci mairie Touba itam def nañ ci ay daje dajale nañ ci association yi dajal nañ ci daayira yi ngir waajal bis bi nga xamante ne bi ci la jóg pour jëmbal li nga xam ne mooy euh, di aju ci Touba mais maire bi sax keroog nee na ma du yem ci loolu dafa bëgg a dajale ñi nga xam ne ñooy maire yi nga xam ne ñoo nekk département Mbacké su ko defee ñoom loolu ñu defandoo ko ndax foog naa bu ñu boole seen kattan ci lay euh, ci ëpp doole. kon daal ñu ngi feeñal suñu suñu mbégte di leen doole sant baax baax di leen gërëm di leen yóbbante ay cant ci monsieur le président de la ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp salaamaaleykum wa rahmatulah.